metti woon na ñu dem ca Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam fa mu tëdd di jàmmalaay ba ñu fa ñaanee jàmm yàlla mayoon nanu jàmm ca yooyu jamono bu réew mi yënguwaatee appel dëkk ñëw sas la ci ñun jàmm ci réew mi waa jàmmalaay ñu ngay ñaan jàmm ci réew mi lii am yàlla dogal appel jiitu ci kon appel bii nanu ko def appelu ñaan ku nar a yàq réew mi nag la Seydina Isaa waxoon mu ne fii manees na fee yàqule waaye kenn mënu koo yàq nañu bàyyi xel ci ne réew mi mag ñi fi jaar samp bi ñu ko samp koo ko bëgg a yàq yaay yàqu waaye réew mi moom di yàqu bu soobee